répétition est la répétition est pédagogique alors euh, comme ni ko waxee moom j'ai l'impression que daal moom ci mbirum foncier dafa mel ni reste sceptique tu penses que avec les euh, nouveaux dirigeants mën nañoo dem ba li nga xam ne te mooy mbirum foncier yi comme l'avait dit le président Macky wax ne bokk na ci problème yi muy gën a recevoir dañuy toog bu mu nekk euh, loo xamante ne dañuy naan ah léeboon ak lippoon amoon na fi mais il a parfaitement il a parfaitement raison d'alerter là-dessus c'est le commencé wul commencé wul tey commencé wul ci Macky Sall commencé wul ci kii ci Ablaye Wade yooyu loolu la commencé donc euh, boo fi nekkee foog nga foog nga foog nga alerter yaa c' pas parce que benn régime bu bees dafa ñëw que dañ leen war a may temps de grâce ba vraiment kenn yenn dossiers yi kenn waru koo kenn waru koo tudd donte nag gis nañu après euh, biñ fi biñ fi biñ fiy door a yegg si après le président Bassirou Diomaye Faye ak le premier ministre Ousmane Sonko teg nañ ay jéego yi wone ni quand même am nañ volonté peut-être euh, pour résoudre problème bi gis nañ fi benn jour férié le président déplacé wu dem fële ca Mbourkat Euh, ñu génneel ko kayit yi nga xamante ni moom moo moom la ñu moom la ñu moom la ñu defaree foofu mu mu mu wax. yëkkati ay kàddu wax ni euh, diw ak diw ak diw peut-être ñu bari jox nañu leen ay terrain fii ci anam yi leen ko joxee teguwul ci yoon bëgg na vraiment que ñu tegaat yëf yi ci def ci ci yoon euh, après ay décision yi euh, génn na fi ñu suspendre construction yi ci ci littoral bi et tout maintenant il faut aller jusqu'au bout du yem rek ci ay wax comme ci ay kàddu mais bëgg nañ quand même un beau jour ñu yeewu rek ñu ni ñi nga xamante ni ñoo construire woon ci littoral bi yëpp gouvernement bi décidé na par exemple raser yi nga xamante ni moo nekkoon ci littoral bi ba delloo ñi nga xamante ni mooy population yi seeni seeni seen ak ak seen i yelleef foofu mais euh, foog ñu xam aussi que ni dafa am ay euh, ay ay ay soubassement juridique yoo xamante ni ñi ngi ci ñi ngi ci ñi ngi ci ñi ngi ci suuf que ñu ci bëri ñu nekk foofu ay titres fonciers la ñu la ñu la ñu amee te pour état bi euh, ñëwaat foofu pour nangu ko c'est des procédures très très complexes très compliquées te bu fekkee ci état de droit lañ nekk quand même ñu respecter yenn procédures yi peut-être que loolu mooy tax ba yenn saa yi muy xaw jël temps mais euh, en tout état de cause l'état euh, quand l'état veut l'état peut mm-hmm, état bëggee état mën na def loolu fekkee état am na volonté quand mm-hmm. rendre jour euh, ce ne sera pas le premier pays boo xamante mooy ñëw di raser ay mhm. construction yoo xamante ni dañ ko def ci kii on a on a eu l'exemple dans d'autres pays mhm. euh, du fekkee nag euh, àq la ak yelleef ci doomu aadama yi ñu disposer ci li nga xamante ni mooy tey yooyu nekk ci plage yeeg yooyu noonu vraiment devoir la ci état bi mu delloo leen suuf yooyu ak nu mu tuddati anam boo xamante ni tabaxee nañ ko mu jaare ci yoon ñëpp xam nañ domaine public maritime bi comment mhm. c'est Euh, même su président bi fi nekkee euh, déclassé woon na euh, benn benn benn parti bi quand même am na ay parti yu bari yoo xam ne kenn déclassé wu ko te jël nañ ko tabax ci def ci lu leen neex donc état bi su bëggee vraiment amee volonté pour delloo nit ñi seen suuf yooyu. état mhm. bi mën na ko mën na ko. l'état peut le faire alors Issa ñu dem point waxtaan. ñëw ci beneen point déjà parce que sànq yaa ngi wax que ni sax bëgg nga wax ci jàmmiste ak li nga xam ne moom ngeen di proposer mais bilan bi li tax muy ñor mooy il faut que yéen ngeen di nit ñi xam fan ngeen mën a tàmbalee am na ñoo xam ne ñoo fi nekk tey gis nañu taw yi commencé na gis nañu aussi les ministres ñu bari nekkoon sur le terrain di xool li nga xam ne moo jot a xew yaa ngi wax sànq ci jeunesse bi am na si ñoo xam ne ñi ngi doon jël gaal finalement seen gaal këpp ñu ñàkk seen bakkan te ñenn ñi certainement ay sénégalais lañu euh, loolu lan nga xalaat ne moom lañ ci war a proposer dëgg-dëgg. xam nga bi ñuy bi may euh, euh, xam nga dañu jël dossier yi gën a sérieux ci dëkk bi daf ko politiser ko. xam nga fii lañ taxawoon ne sénégalais yi bu ñu voté dootuñ jëlati gaal gi xale yi parce que suñu yaakaar mu ngi ci mi ngi ci mi ngi ci mi ngi ci mi ngi ci projet bi c'est pas c'est pas c'est pas mënoo leen ko reprocher mais aussi mënuloo jël misère nit ñi. nga di ko def un un enjeu politique man du ma fonctionner noonu bokk gis naa tey sax par exemple li ngay wax sànq moo tax ma xaw a énervé wu bi nga waxee waxu Amadou Bane mi ngi wax ci immigration léegi lañ ciy door a xalaat ça veut dire que dañuy jël ay dossiers boo nekkee ci opposition bi da ngay chargé boo nekkee au pouvoir nga taxawal nga chargé loolu moo war a dakk loolu moo war a dakk question wu immigration clandestine bi seen question de qu'est-ce qu'on fait de nos ressources humaines ouais. parce que yàgg naa leen ko wax dégg naa ñu ngi wax naan gaz bi bu génnee dëkk bi dinañ am naataange ndaw ñi dinañ am liggéey damay fàttali toujours ne ndar ndar ndar ndar gañ ko waxee ndar yi dañoo am taarix ak seen barrage bi ñu nekk ñu jege tuuti boor boobu war nañ fàttaliku le barrage ba mhm. da ngay dégg sax ci théâtre baale yeegoo bu njëkk ba da ngay dégg après barrage ak avant barrage dañuy gëmaloon ndar ndar yi ne bu ñu defalee barrage euh, manantali ak jama seen àdduna dana dana lépp xale yi danañ am liggéey ba léegi nii furaas comme ni ñu gëmalee woon ne l'an mille ba léegi nii fouraas tey ji ñu nañu gaz pétrole te damay ragal bu ñu ci jotee nam daan demee lay demee maanaam ñi am ñooy gën am ñi ñàkk dañuy continuer di ñàkk xam nga lu tax. Mhm. parce que réglé wuñu problème bi ca ca à la base. parce que boo xamul tey or bi nga am. boo xamul jën bi nga am boo xamul naaj bi nga am boo xamul ndox mi yaa ngi wax mbënd bi maa ngi masawu waa Kaolack ci fan yi ndox mi ni mu leen sonalee yaa ngi dégg mais bu fekkee ne ndox mi la yàlla may sax bu wàccee ci sa réew mujj nekk calamité mu mujj nekk fitna ci sa kaw mais kon gaz bi ngay am ak leneen li ngay am loolu lay jëriñ. mais gaz ak pétrole bi est-ce que fu ñu war a mën a pointer mooy négociation contrat bi nga xam ne Sénégal mu ngi ci am lu dul 18 pour cent. bi nga mënta ji teg. bu fekkee ne amuloo compétence yow ya nga xam ne mën nga ko gérer nga saytu ko nga contrôler ko saa dañ lay nax rek dañ lay nax rek gis nga dëkk am na ci dëkk yoo xam ne tey jii boo demee Chine xam nga Chine nit ñi dañu xamul ne 70 pour cent du territoire chinois encore n'est pas habité parce que dañ ko bàyyi pour l'avenir américains yi dañuy bàyyi seen pétrole ci seen suuf dem di jëli pétrole u Arabie Saoudite bi di ko dundee parce que dañuy prévoir l'avenir ñu tamit lan moo ñu tere woon def ni yenn dëkk yi nga xam ne comme je pense que Rwanda sax am na yenn ressources yoo xam ne def na du ko laal tant que développé wul compétence bi nga xam ne dina ko mën a transférer ba saytu ko. pour ñu waroon suñu gerte gi ñu am sax te tubaab bi bàyyi woon fi benn infrastructure bu taxaw. bu mel ni Sonacos qu'est-ce qu'on en mhm. tey ji gerte gi chinois yi ñoo ñëw ña ngay xatal sàngil di yàq fépp.

lu tax ñu ne jàmmi gox yi. vision boobu mooy solution bi. naka la ñuy fexe ba xam nga bu ñu ñëwee defar suñu dëkk bi tubaab bi daf ñu bàyyee ay capital wan ne yoon bii ngeen war a jël capital yoo xam ne gis nga nu ñu dëkkee Dakar ñëpp nekk fi di buuxante ko mbëkkante fekk àll bi bug ne xambalan defuñ fa dara ñu ñëpp ñoo foog ne wërsëg waa ngi fii dañu ngi bàyyi wërsëg bi ginnaaw ay de petites unités de transformation à la base yi nga xam ne dañ koy commencé comme ñun ni ñu koy defee di defar ay fabrique yu ndaw di teg ay ay ay industrie yu ndaw di ci ëpp euh, occupé xale yi ñuy régénérer seen të seen dëkk yi ñu di ko suuxat ba pare di ci am dara ba pare tepp tepp bu di dog ak dans le long ba nga xam ne xale yi nga xam ne dañuy engagé wu ci processus boobu ñu jot nguur ak ñu jot ci nguur dañuy defar ñun ci loolu la ñu nekk. boo ñu toppee nag dinaa la wan naka la ñuy naka la ñuy mais euh, dafa war a nekk benn atout pour un pays mhm. euh, le secteur informel dafa war a nekk atout pour un pays mhm. euh, naka lañ mën a def ba tey xëy na goulot d'étranglement bi mu nekk des fois pour yenn nguur yi nga xam ne dañuy am problème pour trouver leen emploi wala même secteur informel bi ñoom problème ak le secteur privé naka la ñuy mën a def ba transformer ko est-ce que gis nga kër yi ñii déjà ñu ngi ci yoon boobu noonu waaw li ñu commencé nekk benn avantage xam li ñu commencé Euh, du may di gaaw a wax parce que da ngay jël benn concept gars jël ko sàcc ko c'est ça mhm. dañu dem rek vidé ko jël gën kërtam jël ko dem tax waxee ko neneen vidé ko de sa substance te duñ ko mën a doxal comme ni mu waree li ma lay wax ni heure ma noon jot naa la fi expliquer projet yu bëri yoo. loolu moo tax bëgg wax say proposition ndax bañ mhm. mooy ne dañuy régénérer encore une plus à partir du territoire ñi ko comprendre ak bëgg ko la bu ñëwee di jël xale yi di leen occuper ci loo xam ne ñoom danañ ko gëm ñu nekk ci petit à petit dana amal njëriñ non seulement lu ñuy woowee ay noyau d'initiative d'intérêt public niib lañ ko tuddee ci ay espace yu ñuy woowee ay tàgg xam nga la nga xam ne xale yi dañuy réenchanté defaraat seen bopp yi. parce que gis nga dëkk balaa nga ko defar day fekk nga bëgg ko gëm ko xam ko gis nga dama lay jox benn exemple. boo xam ne dama ko def ci biir Afrique lu bëree bëri benn test la. lu may def ci su ma demee ci sama rencontre africaine yi jeunesse africaine bi jeunesse sénégalaise bi benn élément la ci dañ koy fàtte. parce problème Sénégal mënoo ko régler ba régler problème mu Afrique parce que ci benn anti ci benn kii bu gën a compliqué complexe. damay wax jeunesse bi nan leen souvent gëmmal su ma la wax gëmmee nga gëmm ma ne la xaw ma lay wax benn dëkk nga wax ma lan nga gis xam nga boo gëmmee am ngay image. bu ko defee ma ne la euh, boo gëmmee ma ne la Arabie Saoudite. ma ne loo gis nga ne ma màkk jàllabe yi Dubaï Amérique nga gis. Burj ah les trucs tam nga ne ma sax nga ne ma Beyoncé. tu su ma ne la wax la dëkk yu mag yi après bu ma ne la benn dëkk ci Sénégal ma ne Kaolack wala sa dëkk bu dee Ngoma Ngoma la ñu nekk RDC ma ne la Ngoma. daf ma bett trop parce que dama doon foog ñu ne ma la misère pauvreté bi mbënd mi jafe-jafe yi mais souvent duñ gis dara c'est le noir c'est le vide loolu lan lay tekki mooy ne suñu dëkk yi. ci suñu biir bopp yi du espace bu ñu mun a toog bëgg ko war ko defar espace la boo xam ne amuñ fa benn opportunité gisuñu fa dara dañuy dañ koy daw espace la boo xam ne boo fi juddoo da ngay xool naka nga defee nga daw te loolu boo ko xoolee mhm. président yi bu ñu leen falee ñu tag jël avion dem ministre yi ba leen faloo ñu jël avion dem maire boo fal sax mu ngi xool yéen partenaire lay am pour génn dem li ma lay wax ni xool ko rek ku fii jéem a am dara tuuti sax boo dul tukki journaliste sax ñu ne yow voilà parce que suñu dëkk bi on n'a rien fait defuñu dara pour que xale yi ci seen imaginaire li may wooyee seen biir bopp yi mu nekk espace boo xam ne dañ ko bëgg am ci cofeel ba pare war ci mun dox ñun nag loolu la ñuy liggéey ci suuf. d'accord fa de bawoo ñoom parce que déjà ne da ngeen nga xam ne noonu la ko mënee. yenn hmm. idées yi aussi bu ñu ko tegee da koy déconstruire. Hmm. Euh, yaa ngi wax que ni faaw nga wax ñu fi nga bëgg ni nga bëgg a tegee yooyu noonu ak sa ay proposition mais mm-hmm. aussi faaw nga déconstruire li fi nekk ah, moo tax man j'insiste toujours sur mm-hmm. ce gouvernement ak li ngay wax ne benn oto lay doon boo xam ne mm-hmm. day mel ni lu tegu ci ah, autoroute doo ko bàyyi mu jàdd tey eh, li nga xam ne moom lañu ci gis nii jub jubal jubbanti rupture annoncé woon nañ fi yooyu yëpp est-ce que da ngaa jàpp que ni mi ngi jàdd ci virage bi wala mi ngi ci yoon bi nga xam ne ci la tegoon malgré que yaa ngi alerté non pour l'instant ay slogan kese laa fi gis ak spectacle wax naa leen ko d'ailleurs lan mooy gouvernance spectacle mooy seen gouvernance communicative nekk plus dans la communication que dans la performance def ay résultats nit ñi gis ko teg ci seen bët xam nga par exemple tey jii bu fekkee ne da nga ñëw nga waxoon appel à candidature bi wax naa ci sànq. bu ñu ko commencé woon c'est des performances. Mm-hmm. parce que dafa nekk ay loo xam ne mënuñ ko jéggi mënoo ko laye mënoo muusa ko waane ba ñàkk ba am résultat boo ko defut parce que mérite ak talent mooy développé réew parce que appareil état bi. bu fekkee ne amul ay ñoo ko ŋànk gis nga tey Walfadjri gi jëlal xurdab yi nga teg leen fi mu nekk télé xurdab yaa ngi dégg boo jëlee ay journalistes yu kawe Sidi Lamine Niass ba mu koy samp dafa dem jëli journalistes à l'époque yu gënoon a baax ci ci système mu jël leen teg leen fi léegi Sénégal pourquoi ñun bu ñu suñu état duñ dem xool ñi gën a mën ci mbir mu ne ñu jox ko ko dañuy xool ki gën a liggéeyal parti bi mais loolu moo moo moo moom la fi Senghor nekkee woon te te yóbbuwuñu ci ak mbaax. Mm-hmm. moom la fi Abdoulaye Wade ak Abdou Diouf ak Macky yi nekkee woon te yóbbuwuñu ci ak mbaax yow nga ne da nga ñëw ba pare nekkaat ci loolu te di ko jox ay di jox échéance. Mm-hmm. foofu laay waxee ne yéen yéen war a gën a exigeant loolu duñ ci mës a d'accord te duñ ci d'accord. leneen li beneen point beneen oui beneen point. Mmh. Fadel nga résumé nag. waaw beneen point je veux juste finir euh, sur ça mooy que euh, ñi nga xam ne dañ leen a fal te ñu nekk fi nañ dul opposé woo ñoom man opposé wu mu noonu. Mmh. ñun saagawuñu xeexuñu xuloowuñu. ñoom dañ waaye nag. non saaga nañu xeex nañu xuloo nañu ba tey jii rek nag soo waxee ba pare d'ailleurs maa ngi wax toujours jàmmi sii ne bu kenn tontu kenn ci ay saaga ndey bu amuñ sax jotu nekk ci réseaux sociaux yi di xuloo ko xeex danañ continuer di régénérer di liggéey parce que aussi curseur bi fan nga koy teg bu dañ bëgg ci coow li ak mbumbaay bi ak spectacle bi ñu fekkante ci spectacle bi ba bàyyi liggéey bi dëgg-dëgg jàmmi gox yi dafa nekk di liggéey dëgg-dëgg ci terrain bi attaque yi ñu doon subir ah, aussi les autres parties attaque bu ñu doon subir ñoom est-ce que les autres parties aussi euh, ñu ngi ko doon subir xam nga histoire du Sénégal mhm. muy histoire Sénégal bu fekkee nag loolu moom boo bëggee ñu def ci émission spéciale. non non gars moom <laughs> de Mamadou Dia à à à maintenant. donc voilà fa laay waxee c'est-à-dire qu'on s'oppose pas de cette manière nu ñuy opposé woo ñun. c' est c'est c'est c'est ay proposition la yu ñu nekk ak xale yi ci suuf si ci terrain bi. mais am na Fadel mais Fadel comment ça porte jàmm gox yi après les élections ça ne veut pas dire que. ce mouvement mais comment ça porte jàmm gox ça ne veut pas dire que dañuy laisser passer l'impunité. d'accord gis nga dossier wu euh, euh, xale yi ñu rey. danañ ko topp ba balaa ee ba alaa ee danañ ko topp alaa ee dossier wu foncier bi gis nga mhm. ñaar ñii suñuy préoccupation bopp la bu waajee danañ wàcc ci tali bi manifester à notre manière danañ ko mhm. def ba ñu xam ne sénégalais yi d'accord bu fàccee bu waagee bu wàccee toujours mu wax leen ko nous sommes un grand peuple et on capable de faire face comment se Gox yi après les élections daf ngeen les bilan oui mais bilan bi def nañ ko avant élection waaw après aussi damay laajte <laughs> xam nga ñun da